waaye li nga xam ne moo des ci fukki fan yu mujj yi yàlla nañu yàlla may kattan ba ñu mottali ko ci barke alquran ci barke sayidul wujudi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni tey suñu waxtaan ñu ngi koy aj ci laylatul qadri dinañu wax ngeneel bi ne ci laylatul qadri waaye dinañu wax li ci boroom xam-xam yi wax ci jour yi nga xam ne mooy tombeeg laylatul qadri ngeneel bi bëri na dana am yuñ ci site mën nañ wax ne ngeneelu laylatul xadr bokk na ngeneelam rek ak màggaayam ñu ne ci la alquran wàcc ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> moom mi nga xam ne moom lañ wàccee ci moom al alquran ñu ngi ko wàcce ci moom ci laylatul xadri moo tax alquran di wax ne inna anzalnahu fi laylatil xadri maanaam alxuraan ñu ngi ko wàccee ci laylatul xadri buñ ko waxee nag dañ ko jëlee ci lawxil mahfuz indi ko ci baytul izzati fi samai dunia yàlla nga ko jëlee ci baytul eh, lawxil mahfuz wàcce ko fi ñu tuddee baytul izzati te mooy ci asamaanu àdduna si à partir de foofu nag ci la ko yàlla di yebal jibril ci lu mot ñaar fukki at ak ñett mu di ko wàcce ci yonent bi waaye bañ ko jëlee ci lawhil mahfuz indi ko ci baytul izzati nee na ci guddi laylatul xadr la woon dinañ ci ñëw laylatul xadr moomu ñu wax nag alquran moo wax ne xayrun min alfi shahrin moo gën lu junney weer moo tax kon ngeneelu guddi gi bokk na ci ngëneelam mooy ñu ne alxuraan ci la wàcc bokk na ci ngëneelu guddi ñu ne moo gën junney weer ndax alxuraan waxe ne laylatul xadri xayru min alfi boroom xam-xam yi nag wuute nañ ci ni ñu ko firee waxtalafa ahlul ilmi fi maana annaha xayru min alfi boroom xam-xam yi wuute nañ ci lan mooy maana moo gën junney weer benn boroom xam-xam bu ñu tuddee ibnul jarir moom dafa wax ni ashbahu aqwaali fi dalika bi zahiri tanzili qawlu man qaala amalun fi leylati alqadri xayrun min amali alfi shahrin laysa fiha leylatu alqadri boo demee ci tafsir atabari moom loolu lañ wax dafa wax ni wax bi nga xam ne moo gën a niru ci li nga xam ne mooy feeñ ci wàllu wàcc alquran ci laylatul qadri mooy jëf bu nit kiy def ci laylatul qadri moo gën jëf yu mën a def ci lu dul laylatul qadri moom noonu la ko firee ku mel ni ibnul kasir noon noonu la jàpp ñu wax ne nag kon bu ñu waxee ne moo gën junney weer kon junney weer lu ko gën benn guddi bu gën junne weer guddi googu guddi gu màgg la lu tax mu nekk guddi gu màgg mooy tanazzalul malaaikatu wa ruuhu fiha malaayika yi ak jibril ci la ñuy wàcc bu ñu ne al malaaikatu mooy malaayika yëpp wa ruuxu mooy jibril fiha ci guddi laylatul xadri moo tax alquran wax ne tanazzalul malaaikatu wa ruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin <laughs> nee na alquran ne jibril malayka yëpp dana nu wàcc ci guddi gi waaye jibril yi dana wàcc waaye ci seen ndigalu boroom lañ koy defee indi nag ay ndigal yu bëri moo tax ñu ne wal maqsuudu bi ruux jibril alayhi salaatu wassalaam liñ ci jublu mooy jibril jëlee nañ ci xadis boo xam ne abi hurayrata radiallahu anhu moo ko nettali jëlee ko ci yonent bi moo wax ne laylatul qadri leylatu saabiati aw taasiati wal ishrina wa inna almalaikatu tilka inna almalaikata tilka leylata aksara fi l ardi min adadin xasa isnaaduhu saxiixun aw xasanun ibnul uzayma yonent bi dafa wax ni laylatul qadri nee na guddeel guddi ñaar fukki ak juróom-ñaar wala ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne guddi googu nag malaayika yi dañuy wàcc bari ci su ko suuf si ba nga xam ne boo doon ko doon natt da ngay wax ne lu mel ni pepp suuf yi noonu la malaayika yi di bare guddi laylatul xadri guddi googu kon guddi goo xam ne malaayika dañ ci wàcc kon guddi googu guddi gu màgg la beneen bi ci des mooy innaha salaamun guddi gi guddi jàmm la moo tax alquran wax ne salaamun hiya xatta matlaci alfajri ixtalafuu fi tafsiriha fa qiila salaamun min alcharri kullihi wala yakunu fiha ila salaamata wa qiila taslimu almalaikati ala almuminin wa qiila laa yastatiu alcheytaanu fiha sawaa su'a wa qiila gayru dalik boroom xam-xam yi bi ñuy firi aaya bi am nay wute ci déggin yi am na nañu wax ne bu ñu ne salaamun jàmm mu ne salaamun min acharri kullihi maanaam guddi gi yépp jàmm rek ma ci am musiba mënu ci am wala yakunu fiha ila salaamata nee na dara du na am ci guddi gi lu dul jàmm rek yiw waqila am nañu wax ne nag taslimul malaikati ala al muminin maanaam ni malaayika di ñaanal nit ñi jàmm ci guddi googu moo tax ñu ne salaamun am ñoo xam ne dañuy wax ne wa qiila laa yastatiu seytaanu fiha suu mu ne seytaane guddi leylatu xat bi ci mën dara guddi googu yi tamit annaha laylatul mubaraka guddi gu barkel la moom tax alquran wax ne ca suratu duxaan inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka maanaam alquran bi wàcc nañ ko ci guddi gu barke te mooy guddi laylatul qadri ibnu abbas bu ñu laylatul qadri bu ñu waxee ne laylatul mubaraka mu ne laylatul xadr yi maanaam guddi gu barkeel gi mu ne mooy guddi laylatul xadr guddi la boo xam ne it nag ci guddi gi la yàllaay dogal ñi war a génn àddina ñi war a am nangam ki war a am nangam ñëpp ñi war a juddu ci guddi googu lañ koy dogal moo tax mu wax ci beneen aaya mu ne fiiha yufraqu kullu amrin hakimin mu ne ci guddi googu la yàllaay dogal lu ne moo tax guddi bu ñëwee nga war ci góorgóorlu ci ay ñaan dinañ ci ñëw léegi incha allah guddi googu nag koo xam ne taxaw nga guddi laylatul qadr alquran moo yonente bi sallallahu alayhi moo wax ni ñu jëlee ko ci abu hurayrata abu hurayrata ne yonente bi nee na man qaama laylatal qadri imaanan wahtisaaban gufira lahu ma taqaddama bi zambihi wa ma taaqara am na beneen riwaaya yonent bi moo wax ni képp ku taxaw guddi laylatul qadr ba nga koy taxawu da nga ànd gëm gëm gëm guddi gi da ànd ci ak ngëm waaye yaa ngi koy def pour fagg yiw mu ne ku def loolu ñu jéggal la sa mboolem bàkkaar waaw maa dama min bi li nga defoon ci bàkkaar yépp dañ la koy effacer lu tax ñu tuddee ko laylatul qadri benn borom xam-xam bu tudd xaafis ibnu xajar ibnu xajar moo wax ni waxtu lifa fa fi lmuraadi bilqadri allati udifat ilayhi leylatu alqadri fa qiila almuraadu bi atazim nee na borom xam ay wuute nañ ci lu tax ñu tuddee bés bi guddi laylatul qadri qadri googu luñ ci jublu mu ne am nañu wax ni liñ ci jublu mooy màggal comme que qawlihi taala comme ni ko alquran waxee wa ma qadrullaha xaqa qadrihi maanaam joxuñ maanaam yàlla kenn xamu ko dayoom yàlla subhanahu wa kenn xamu ko am ñu wax ne wa maana annaha zaatu qadrin li nuzulil qur'ani mu ne c'est-à-dire am na dayoo guddi gi am na dayo mu ne lu tax mu ne parce que le fait alquran wàcc ci guddi gi kon guddi gi guddi gu am dayoo la am ñu wax ne nag am na dayo moom guddi gi am na màggaay ci guddi gi lima yaqaw fiha min nuzulil malaikati parce que li tax malaayka di ci wàcc guddi googu guddi gu màgg beneen bi ci des am ñu wax ni aw lima yanzilu fiha min al barakati wa rahmati wal maxfirati am ñu wax ne li ci wàcc ci barke ci yërmande ci njëggal mu ne an anna alladi yuxyiha yusiru za qadrin mu ne ki nga xam ne moo koy dundal mu mujj nekk koo xam ne dafa am barke guddi gi nag bu ñëwee lan lañ ci war a def mooy al amal al mustahaba fi hadihi leyla jëf yi nga xam ne sopp nañ ko ci guddi gi yustahabu fi hadihi leyla al ijtihaad fi ati mu ne sopp nañ guddi leylatu qadr bu ñëwee nga góor góorgóorlu ci jaamu yàlla nga góor góorgóor ci topp yàlla ci guddi gi wa wurida an nabi sallallahu alayhi wa jëlee nañ ci yonent bi ci ñu wax ni ijtihaaduhu fi ashri al awaqiri mu ne yonent bi jëlee nañ ci moom ni doon góorgóorlu ci fukki fan yu mujj ci weeru ci weeru koor bi nga xam ne dañ ko ci def mooy itikaaf te mooy nga dem ci jàkka ji sayduna muhammad jëlee nañ ci aïchata radiallahu mu wax ni anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kaana yactakifu min ramadana xatta tawafaahu allahu subhanahu wa jëlee nañ ci ñu yaay Aïcha mu wax ne yonent bi daana dem itikaaf itikaaf mooy nga dem gedd kër gi dem ci jàkk ja nga xam ne fa ngay defee sa lépp ci jàkk ji nga koy defe yonent bi daana ko def ci fukki fan yu mujj ci weeru euh, weeru koor wi loolu la ko doon def ba bi yàlla def mu dem barzak xadis boobu Buxaari yi génnee na ko muslim ak Abu Daawud ak Tirmisi beneen bi ci des mooy qiyaamul layli te mooy ngay naafila guddi gi moo tax alquran wax ne man qaama laylatal qadri eh, sayduna muhammad moo ko wax kon moo wax ne man qaama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ku ku taxaw guddi gi moo xam dangay ngay naafila guddi gi moo xam dangay ngay ñaan moo xam looy jàng beneen bi nga xam ne sopp nañ ci guddi gi mooy addu'a u ñaan sayyidatina Aisha moo wax ni ra'aytu gis naa dafa wax yonent bi ne ko waaw bu ma demee nag boo gis ne guddi gii mooy guddi laylatul xadr lan laa ciy wax c'est-à-dire mooy bu ma jàppee ne tey mooy sama laylatul xadr lan laa ci war a ñaan ñaan gi danañ ko répété léegi bu ko defee ñu koy déglu mën ko jàpp seydana Aïcha bi mu ko waxee yonent bi yonent bi ne ko quuli del wax ne allahumma innaka afuwun tuhib tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni te mooy yow yàlla yow daal ku kuy jéggale nga ku bëgg ku koy jéggal kon yàlla jéggal ma xadis bi Tirmisi génne na ko Ibnu Maaja ak Ahmad ak Xaakim dem na ma wax ne guddi gi sopp nañ sax bu ko xamee ne tey mooy sa guddi laylatul qadri ñu ne nga yee say sa waa kër ndax kaan nabi sallallahu alayhi wa sallam ida kaana aqiru ashru awaqiri ida kaana ashru min ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqada ahlahu rawahu albuxaari wa muslim yonent bi daana def ci fukki fan yu mujj yi dafa mel ni day gën a takk ndiggam pour mën a jaamu yàlla mu ne teelaay guddi na gën a dundal guddi gi waaye du yem ci moom kese dina woo waa këram pour ñu jóg jaamu yàlla ci guddi gi ñaan yàlla moo xam loo mën a def ci jaamu yàlla mooy wa ihyaa'u layli yakunu bis yi dundal guddi gi nag mën na nekk ci julli salaatu tas tasbiya ngi fi yeneen salaatoo ngi fi waaye loo mën a def ci nawaafil ci guddi gi nga def ko wa qiraatul quraan yi wala nga jàng alquran loo mën a jàng moo xam am ma yetta saawlo na ba wàcc nga mën jàng ko kon nga def ko beneen bi ci dama zikru ngay zikkar zikru nag buñ ko waxee mooy tudd sa borom mooy nga yore sa kurus laa ilaha illallah baax na istixfaar baax na salaatu ala nabi baax na loo mën a jàng ci ay turu yàlla nga mën ko jàng yàlla tiif baax na ak yeneen di tur léegi nag ñu ñëw ci boroom xam-xam yi wuute gi ñu wuute ci ne la bés sàngam mooy laylatul qadr ixtalafa al aaraau al ulamaai fi taxdidi waqtiha ila akthari min arbaina qawlan maanaam pour wax la ni boroom xam-xam yi wuute nañ ci tegtal yi ngay joxe ci ne bés sàngam mooy laylatul qadr boroom xam-xam yi wuute nañ ci dem nañ ba wax yiñ ci moo wax ci wuute mot na ñeent fukk ñeent fukki wax yoo xam ne kenn ku nekk danga wax ne nangam mooy laylatul qadr waaye nag walakina arjahaha wa aqwaha annaha fi l witri min al ashri al awaqiri min ramadan mu ne waaye nag wax yépp bi ci gën a dëppoo bi ci gën a wér mooy ci fukki fan yu mujj la kon li nga dégg mooy fukki fan yu mujj ci weeru koor yow jàppal ne moom fukki fan yi moom boo ko dundalee fokk nga daje ci laylatul xadri xam nga yàlla subhaanahu wa dafa nëbbu turam bi gën a mag ci biir turam yi turam bi gën a màgg ci biir turam yi moom la daf ko nëbbu waaye ci biir julli dafa nëbbu lu ñu tuddee salaatul wusta salaatul wusta salaatul wusta boobu ñu nëbbu noonu lañ nëbboo xam-xam yeneen wuute nañ ci kañ la laylatul xadr lu mat ñeent fukki wax comme li ma waxoon léegi rek mooy dem nañ boo ñu wax ni ni yàlla nëbboo turam bi gën a màgg ci biir turam yi salaatul wusta mu nëbbu ko ci biir julli yi kon jullit bi danga nga war a fexe juróom-ñeent fukki téem juróom-ñeent yàlla yeeg juróom-ñeent ba ko téeméeral moom lañu ñu fexeel yow juróom tur yooyu bu ñu ne tur yàlla rek nga fexe nga jàng beneen bi ci des mooy salaatul wusta bu ñu ne yàlla nëbbu na ci biir julli salaatul wusta am ñu wax ne tusubaar la am na ñu wax ne tàkkusaan la am na ñu wax ne gee la waaye yooyu yëpp fexeel ba yow julli yooyu nga nga fexe ba respecté leen il faut nga daje ci ak salaatul wusta beneen bi ci des mooy am na ñu wax ni ay ahadis yoo wax ne dañu wax ne mooy fukkee ñaar fukkeelu fan beeg benn am na ñu ko wax kooku benn la ci wax yi am ñu wax nañ ci ñaar fukkeel beeg ñett la am na ñu wax ci ñaar fukk ak juróom-ñaar am na ñu wax ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye ibnu abbas dafa wax ne innaha annaha leylatu sabii wa isrina mu ne mooy ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar te boobu moo gën a bëri dinañ ko joxe ci ci ay chiffre ndax boo jëlee ina anzalnahu fi laylatil qadri baatu laylatul qadri saar bi répété na ko ñetti yoon boo jëlee laylatul qadri boo limee xaraf yi juróom-ñeenti xaraf la lay jox laylatul qadri boo jëlee juróom-ñeenti yooyu multiplier ko par trois mooy inna anzalnahu fi laylatul qadri wa adraka ma laylatul qadri laylatul qadri ñetti yoon la kon boo jëlee 9 multiplié ko par 7 mu jox la vingt 27 am na ñu wax ne kon loolu tax ñu di ko tax ci 27e jour bi am na ñu wax ne it ba léegi ci saar bi nga xam ne ci la ñu tudd Laylatul Qadri boo commencé di compter baat yi boo ñëwee ba ci salaamun hiya muy ñaar fukkeel bi ak ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar te buñ ne hiya mooy guddi gi hiya gi day junj guddi gi nga xam ne mooy guddi Laylatul Qadri kon loolu yëpp day tekki ne kon Laylatul Qadri mooy ci fukkeel bi ci ñaar fukkeelu bés bi ak ak juróom ñaar waaye ala kulli xaalin moo tax ah, xaafis ibnu xajar wax ni qaala al ulama an al xikmata min ixfaai leylati al qadr li yaxsila al ijtihaadu fi iltimaasiha bi xilaafi man law ciyinat laha laha leylatan laqtusira alayha fatxul baari eh, ibnu xajar dafa wax ne xikma bi tax ñu nëbbu guddi gi mu ne ndax nit ñi buñ koo xamoon ne bés bii mooy guddi Laylatul Qadr da ngay toog ba guddi gu jot rek nga màggal guddi mu jeex waaye dañ ko ci nëbbu pour nga mën a sonn ci fukki fan yu mujj yëpp nga sonn ci looloo tax fukki fan yu mujj ci weeru koor ñuy dem ci jàkka yi di def ay naafila waaye loolu tamit dañu xam ne nag dem naafila ci jàkka ci mbooloo loolu naa Seydunaa Muhammad mosu ko def donte nag bidaa la bu ñu sos dañ ko sos moo tax li ñu tuddee xiyaamu layli alquran moom buy wax ne dafa wax ne rek guddi gi day ci naafi la waaye du la wax ne demal ci jàkk ji boo ko defee ca mbooloo ma di nga am yool waaye nag dañu wax ne naafi la nga defee ko sa biir kër sa biir néeg moo ëpp yool nga dem ca jàkk ja bu fekkee ne julli juróom yi rek nga dem jàkka ja moo ëpp doole nga jullee ko sa kër kon loolu kon lii daal ci résumé moom lañ doon indi rek pour auditeurs yi nga xam ne ñoom ñooy suivre émission diine ci seen Senclic bu ko defee yooyu moom moom lañ doon wax ci lu aju ci laylatul qadri yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañu ñu daje benn ci dat yiñ la wax ndax sunu waa kër maam borom Touba def nañ ko le yàlla yàlla dajale ñu moo tax ñu bëgg rek kenn ku nekk. bu ñu la waxee ne ci ñaar fukki fan yu mujj ci fukki fan yu mujj yi moom lay doon ndax li ñu wax yëpp gënul lool kon bu boobaa yow bu ñu ne tey bu fukki fan yu mujj yi buñ ko xamee rek commencé yow bés bu nekk nga jàpp ne mooy laylatul xadr jullil naafilal jàngal alquran defal lu baax tuddal yàlla sàmbalal yàlla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wala akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim wala hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yooyu nga di ko wax ci guddi gi di ñaan sa borom sutura ñaan sa borom tawfiq bu ko defee ku jàng loo mën a jàng ci ay ñaan nga ñaanal sa bopp ñaanal njaboot gi ñaanal dëkkandoo yi ñaanal quartier bi ñaanal réew mi ñaanal àddina si rawatina fépp foo xam ne jullit nga fay sonn nga ñaanal ko yàlla yàlla woyofalal ko ñaan ñi nga xam ne ñoo ne ci cellule prison yi te xat-xat yóbbu leen fa yàlla delloo leen ci jàmm yàlla defal ñu tawfiq nangul suñu koor te lépp luñ ci jaamu yàlla ñu ko yàlla nangul kon fii daal mooy kaddu yi ñuy wax ci wàllu euh, laylatul qadri yàlla ñu yàlla dëppale ak laylatul qadri wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.